Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi asalaamaaleykum waa adduna asalaamaaleykum waa diaspora bi ah, comme ni mu leen ko baaxoo dañ defal seen émission Sangouma ma si doon ànd ak sama doom nday Omar mi nga xam si ni fan yi gëj na ñëw mais dafa nekkoon si ay yitte donc xam nga xam naa ni ah, ah, dégg naa dafa takk soxna duñu ko nëbb léegi nag am ñu ñu amaat suñu beneen artiste comédien kooku mu ngi tudd Ibrahima mi ngi nii taxaw ni ñu daan defaat rek la ñuy defaat ak yéen ñëw seen émission Sangouma Euh, yëngalaat leen ba mu yëngu euh, caw leen xiir yi ah Omar waa gars yi wax làmbal yi. ndeysaan jërëjëf sëñ mu mel ne ni nga ko waxee noonu la mm-hmm. waaye ñu nuyu bu baax ñi nga xam ne ni ñooy suñuy mbokk. Mm-hmm. ñi nga xam ne ni yàlla dogal na dañoo bëgg. waaw waaw mënuñoo dem saañu ñu. dëgg la ñu leen di bu baax a baax tey am mbégte. ñëwati nañ seen émission. Sangomba Sangomba Sow. Sangomba na namoon naa leen ndax fan yi damaa demoon ci àll bi. waaw waaw waaye Pape maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay. waaw di nuyu suñu mbokk mi nga xam ne Ibrahima. Mm-hmm. mu lay nuyu bu baax. di am mm-hmm. mbégte di kontaan ci yow. waaw eh, moom moom mi. Mm-hmm. Euh, nijaayam euh, doomu nijaayam la seetu dëkk ba. Euh, ngir ñu may ko soxna. waaw mi ah, ah, gars yi wax leen nag moom de ah, wax wax naa leen ko soxna wax leen si Omar ñu tëj. ah léegi Ibrahima moom mi xam ne artiste comédien la. dama bàyyi nga nuyoo gars yi rek. waaw di wax di wax asalaamaaleykum Sénégal. waa ci seen émission. Sangumba Sow mm. Sangumba. Sangumba Sangumba Sow. Sangumba Sow. waaw Sow Sangumba Sow. waaw seen émission Sangumba Sow. waaw comme ni ko ñëpp waxee. Mm-hmm. waaw ñu fas yéene leen a bëgg rek. waaw def comédie mu neex. Mm-hmm. ñëpp kontaan. waaw ka fooree. Sénégal jàmm rek moo fi xet. Dóor dàqe. waaw noonu la. Dóor dàqe kii lay dóor gi kii dóor gi. nga ay dàqe. noonu la ko gars yi di wër taawal. comme comme foofu fàtte woo leen ko de. jam nañ jos naa la. daw aw koñ bi génn kii ak langa ak langa langa buri langa buri mosu leen mosee dóor si bët <laughs> foofu nee nañ noonu dóor nañ ma si bët mais loolu yëpp euh, euh, euh, foo la amee si Salam Vision mm-hmm. Euh, site bi nga xam si ni euh, moom jàmm rek moo ko yitteel. Ah. nga xam ni euh, bañ ko ba dañuy dañuy salaam. waaw salaam moom salaam jàmm salaam foo fépp foo ko dégg. Mm-hmm. mooy jàmm. waaw di leen wax ngeen wéyal di abonné si Salam Vision. Mm-hmm. ngeen di abonné si suñ ñuy abonné di leen bégal rek. waaw bala ma balaa ma balaa maa dem fenn damay nuyu bala ma déglu si émission bi. Mm-hmm. damay nuyu ka ma daan nuyu. de sant ka daan sant. gannaaw ban sante yàlla julli si yonent bi sant suñuy waajur ah, kooku nga yow xam si ni du ma la fàtte fenn muy Cheikh Ibrahima. ndeysaan chaque jour moo wax leen ko. ndox du eh, na yàlla defal jàmm. amiin Cheikh Ibrahima Ndiaye. ku mu fajul doo faj. Cheikh Ibrahima Ndiaye. Cheikh Ibrahima Ndiaye. loolu war nga maa boole moom de kon. Cheikh ah, la lu muy faj. kenn kooku lépp lay faj. lépp. dalay ñaanal moom dalay ñaanal moom moo xam dalay ñaanal nga tax ci jëfet. suñu wàll ne nee naa ay suy gudd gudd la dara. Mm-hmm. du fi euh, am lu muy ëppante. Mm-hmm. bu gisee euh, Cheikh Ibrahima day njëbboon. moom moom mbaa dina faj loolu. Cheikh Ibrahima euh, jàmbaar la moom lépp lay faj Cheikh Ibrahima yow daa ne la yàlla defal jàmm. ah ni ni dugg si ni dugg si si mbir mi. Omar. waaw Ibrahima. fan yii am na lu fi xew. Mm-hmm. loolu nag dafa leen bàyyi ngeen ngeen ngeen kii ko ñu naroon ñuus Touba ñu demoon naan dañuy dañuy dañuy kii kaaw kaaw wax la ñoom waaye. loolu loolu moom loolu moom la Sénégal gépp di waxtaane mhm. ndax xamadi weesuwul ngay dem si dëkk boo xam ne dëkku jàmbur la. Mhm. Ah yow xanaa yow booy dem dëkk boo xam ne nii dëkku jàmbur la. boo demee kii kilifa ji nga aw ci moom sax wax ak moom. waxal ba xam li nga bëgg di nga ko am. Mhm. waaye xamadi weesuwul def sa délégation nag ba mel na sañu naanaa. waaye ñuus yéen leen fa ñuus. Ah, man foo mën ni dem moom la ñuy waxtaane. ah. gaa jafe ñoom xanaa ay gan lañ ci Sénégal. ñoom kay kenn dëkku fi. Ah, ñoom kay ñoom kenn dëkku fi waaw te ko dégg te xam ko rek. mbokk suma yi ñoo fay dem. ah nan wax da mbokk suma yi. ah dootuñu ko defati. ñoom la euh, suma bëgg jigéen rek bu dul si ànd ak délégation dem Touba waaye wuli na leen de wuli nañ leen duma duma duma duma bi leen duma xam nga fa lañ aw. Hmm. ci penk jumaa ji. Hmm. ci armée yi. Hmm. fa lañ aw mbedd moom lañ aw. ban yëg autoroute bi. xale yi tànc leen. jege nañ yow mal xiyaam nag. <laughs> armeel ya. Euh, foofu la lépp li jege nañ yow mal yow mal xiyaam de moom bu ñu lay wuli nga fay jaar. man daal dama jëkk fa ngay jaar muy sa borom muy muy muy kii. comme ji xaar. moytu moytu fët fët fët fët Omar gaa ñamal. Omar Omar. kuy laa lay nettali Omar gaa ñamal. kuy laa lay nettali. Omar Omar kii. saa yi dafa dem ah waaw waaw waaw ah, <laughs> loolu tamit jar na laaj. xam nga Sénégal ah, xam nga <laughs> man pareeguma sax muy nettali. léegi léegi waxal nettali. dafa xew laa lay wax. ah nettali man naa ko seetaan nii suñu bët. Omar oh, oh, hmm. man bu ma xool sax. man maa ngi demoon nga. man maa ngi comme ah, baax na. waaw oh, baax na. yéen nit mënul yéen a nit mënul wax loo leen gëm. gars yi ay seen tur la leen jàppee yow nga ni nii ba man gis naa ay coups. fët fët fët yow gis nga ay coups yow. fët nga si moom laa ko déggee.

ay kuwa ñuy wax wax yàlla. ci jamu fa waay. xam naa ne moom. waaw ah, yow mii boo demoon Touba daan la war. sa bopp njàng bi. Eh, man su ma àndoon ak su ma àndoon ak ñiy wër ba dañ may gis rek boole ma ci Baay Faal yi. mu ah, ba baax na. lii. lii di mel ni toolu sara. ndax baax na. sa bopp bii lii nii. lii lii nit ah, dina ko def. bopp bopp bii lii di mel ni. lii Omar waaw ne kii mu watu. lii di mel ni mbob nii. yaa ngi xamal leen nag de lii foo ko gis ci góor rek. bu borom xel la. bu am hmm. xel ñi amul xel ñi karaw zéro. waaw ah, man man man fi mu nekk nii Omar. waaw man maa ngi wax mais suñu sikir bi daa génn. karaw bi fii la war a nekk. dina génn dina génn kay dina génn. xool bi karaw bi ñëw lii lii lii lii ba jàmm la. dina génn wax leen si. gis nga Cheikh Ibrahima waxal si sikir bi mu ñëw. gis nga sikir nekkul fu nekk lay sax. sikkim nekkul fu nekk lay sax. Omar bosom ñëw na aussi. ah man damaa dem Morok xam nga Morok. Mm-hmm. <laughs> mu ak ñu mën a yar sikkim. fan. Maroc laa demoon. mais naan mais tey Maroc. Maroc. Maroc. laa ilaaha <laughs> illallaah. waaye du Maroc du Maroc du Maroc. lan la Maroc. man de damaa la. ma. la ñuy wax. Euh, chinois du Maroc. waaw waaw ba tey waxal waxal yooyu dugal nit. di yóbbu yow mooy xiyaar. waxal di la denc. waaw ah, ba tey moom bopp euh, bopp bi saq bi moo koy wax <laughs> man sama sikki bi delloo bee may wax loolu mais moom boppam bi waa ji. waaw bu dee lekk ceeb. nii lay def sikkin bi ba soog a mën a dugal ceeb maa ko teg ko. ah illah. waa salaam ñoo ma ko yóbbu. Cheikh Tidiane Diop. ah ah déet baax na am. du ay marak ku ko wéddi kay du ay marak. <laughs> yow àndoon kenn. àndoon nag. Euh, waaw wàññil sikkin bi waaye. Pape Daouda la àndaloon waaye Pape Daouda. def la àndaloon mais dañoo dem du si yoon bi moom moom gis na ma sax mais après daa tourné <laughs> def <laughs> xar mag Sall. waaw ngeen def nag bàyyi li ngeen def nag. non sikkin bi lañ bëgg nga wàññi ko ba noppi ñu soog a jàll ci leneen. non man gis naa façon sikkin bu ne mais sikkin boo xam ne booy lekk ceeb da nga koy aj moom man maa ngi koy soog a dégg si yow. kooku si sikkin bi nii la koy def bu dee dox nii day gaaloo nii sikkin bi da koy gaaloo. yow boo waxee loolu sax benn côté mën naa laa gëm ndax man gis naa xale bu jigéen boo xam ne nii bu bootee doomam buy nàmpal doomam mën na mën naa bañ a wàccee bi ween bi lay jël sànni ci ginnaaw est ce que yaa ko fekkee. bu daanee lii ah dina daanu plateau bi dina ah. daanu. lii yii wax yii wax yii wax. kii ni bu nekkee yaa si bàyyi sa doomu ndey la. càmm na bu wax loolu xam nga ngeen waxal. kooku naan ah, yeneen bi gënu ko ndey gënu ko bàyyi. Omar kooku da ngaa gaaw a ko war a boole borom yi ñu nàmpal. kooku xamante doo nga ko jàpp. boolekaag borom weer yi ñu gàll ko weer bi comme nga yaa dañ ko gàll yéen. kooku boolekaag kooku Omar jàpp. ba mu sant jox ko tur tur tur. waxee boppam boobu mu mel ne tëli bu takkal saako kemb may wax mu naan ay kii yow kii damay damay sal salaatoo sa. Eh, ah bu sal salaatoo ah, poobar ah, yow kii est-ce que dégg non sax doon naa gis ah. Sénégal tijaan tijaan jàpp murit waaye yonent bi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musuma gis. kooku nga mu daj. lépp luñ bind moo tax ku jël dara lu ñaaw di ko wax si yonent bi billaahi musuma ko gis dinaa gis nag ku nekk di dóoranteeg sa morom waaye ñun ñëpp bu ñu paree bi la ñuy jublu sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam waaye yàlla sax yàlla sax euh, ba mu nee moom dane bi mm-hmm. ba mu nee bi soo koy teg ndey ak bàyyi mm-hmm. ba mu nee ndey ak soo koy kon yonent bi moo gën suñuy ndey gën suñuy bàyyi foofu dafa sori yonent bi ay doomam rek ay doomam ñoo gën suñuy lay gën suñuy. mës naa ci mës naa ci fekkee xeex de. Ah. mës naa benn xeex de. Pape Naar mës nañ toog guy xam ngeen guy ga guy Fatou Mbengue nga xam ngeen ko. fa laa dëkk fa nga dëkk. ah dama koo xam guy Fatou Mbengue lañ toog daal ñuy waxtaane yonent bi benn guddi. waxtaan ji coow li bëri rek benn paa jaar fa naan yéen seen coow li bëri na di la moo waral coow ji rek paa naar jóg làmmiñ moom day werante rek ne ko père ñu daal ki ñuy waxtaani mooy gën di mbindeef ki gën suñu ndey gën suñu baay gën sa baay gën suñu baay waaw ne ko loolu de dëgg la ñuy toog nii mm. paa jigéen ne ko vraiment booy da a réew nag. wax na ko dëgg. wax na ko dëgg. war ngaa ma ci gën sa nga maa waxoon. man ne ko ah man dëgg laa wax rek moo gën sa baay gën suñuy baay. mu ne ko non non ni nga ko waxee moo ma neexul. bilaay dëgg ñu ñoom ñu ko père pourtant kii nga déedéet kii gonam xamali la. non na nga ko waxee nag. waaw. waaye dëgg la waxee. non dëgg la wax sax. wax ni mu nekkul baay. ne ko ci gën sa baay gën suñu baay. ba ci kanam mu xalaat. ne bi li mu wax tuuse na ko mu ne xale far réew ko wax. noonu la ñoom ku leen wax dëgg. Hmm. ñu gisee ko noonu. waaw yeneen bi moo gën suñu ndey moo gën suñuy bàyyi. billaahi moo gën képp doon toog di wax. wallaahi yaa ngi dégg loolu yàllaa ko wax. waaw war war toog si télé di wax am na yoo xam si ni ah, ah, ah bu bu bu ñu sonal waay. man lenn li xamante naa ko jàppee xaw ma ndof. man man Omar man gedd naa Franc. dégg nga gedd bu dee am na lu des. lii lii dafa dëgër. lii daa dëgër. gaañ bul fi mbëkk lenn gaañ. gaañ bul fi mbëkk. waay baal ma ji waay kucel waay baal ma ji waay ma bàyyi leen ma ma dem taxawal taxawal taxawal. waaye kii dafa tàngal sunu xol yi waay. taxawal rek kii sunu xol la gën a tàngal man mii di wax ak. taxawal rek. waaye yow nag bu mi bari ni mel ni xataru nag. waaye yow nag waroo di jël nag borom doole moom buy xataraay ci éni war a nekk. wax dem dem ja yomb waaye di wax dëgg yàlla ah yow tamit da ngay xam nag. Ah, ah, ah, fu ma fu ma nekk la fu ma nekk la. ah fu ma nekk la. waaw li nga xam si yeneen di sa morom ndey di sa morom baay boo ko jóg rek yeneen bi moo ñu gën ndey moo ñu gën baay. xam nga ndaxte yàllaa ñu bind yàlla ñu sàkk yàlla dañ ne gannaaw man Seydina Mohamed. gannaaw Seydina Mohamed nag seen i waajur. kon Seydina Mohamed moo ñu gën nañ bi. ndax nga xam si yàllaa ko jox lépp yàllaa ko bëgg fu mu fu mu yegg sax fi fi yonent bi yegg sax malaaka yi yegg ñu fa yow nga bëgg ñëw toog si télé bi bëgg ñëw sonal. ah dimbali leen ñu bàyyi leen deru yonent bi ah, di Macron moom ñamal na yow nga bëgg a ñëw ne yaay bëgg a remplacer fii Macron di Macron danoo sori. mais yow nag fii dëkk lislaam la eh, eh, eh, fii dëkk ah, Alxaaji Maalik la dëkk Serigne Touba la. yaa ngi dégg ah. nga bëgg a ñëw fi bëgg a ñëw ah, bëgg a sa bëgg a ñëw bi duñ ko fi defee tey duñ ko fi defee ëllëg nag. ko defatee. macaron sarewul nag chaque jour nga ñam ko. kat si macaron ñu ngi koy xaw a rey chaque ko wax. <laughs> nekk macaron. makarona sax su ñu lekkoon. makarona. sëñ bi macro ma macaron macaron la ne wax wala booy macaron wa xam li moo tax nga jël émission bi. Eh. li ma gis xam moom nii may wax ñu ñu may bëgg a jóg ñu may yóbbu fële. mais boo juumee dana la juum. da ngaa juum. sama xel bi dem na super moom bu mbéyee noonu lay wax de. bu kan changé ma plateau bi waaw tool ma góode borom waa caare yëpp ma bàyyi bàyyi ma ñëwee moom day mer rek ak a mën a mer mais Omar ah, émission bi neex na lool ndaxte ah, artiste comédien yi mhm. ah, dañ leen a war a jox seen ak ak seen yelleef mais def nga gis nga jamono ji mhm. kooku ñu naan kumba ba yegg sa gaaw la ja mhm. maanaam ñu naan ko kumba gaaw la artiste bu mag artiste bu mag ndeysaan moom mi nga xam se dafa tawat maanaam baat bi keroog ndeysaan ku bëgg bu may seetaan TFM. bul jooy jarul jooy jarul jooy bul jooy bul jooy jarul jooy jarul jooy nañ ko ñaanal rek. nañ ko ñaanal rek. nañ ko ñaanal bul bul jooy góor a jooy moom baaxul dara. bul jooy ah. bul jooy boo jooyee man damay jooy. Coumba Gawlo ak lu tee sa bul jooy yow tamit ponkal jooy nag moo gën a ñaaw. bul jooy boo jooyee man damay jooy. jàppale si waay damay nañ ko ñaanal rek jàpp ñu si jógal rek. ñaanal ko rek ndax naa la xamal leen nag. Mhm. Sénégal nekk na dëkk boo xam ne. ndeysaan bàyyi ko mu jooy xol bee rek. Ah, ah, <laughs> dégg gis nga Sénégal nekk na dëkk boo xam ne nii. Mhm. balaa ñu laa a xam nga dee. ay hmm. toll nii nii kuma gaw la ñaanu ma ko yàlla tey jii génn àdduna nga commencé ñu koy tuddee ay koñ da ko tabaxal monument. Hmm. léegi mi ngi dund lan moo tax loolu defuñu ko. te wayu Sénégal yóbbu na fu fu ne fu ne Sénégal. Kumba Gawla yow bu la dara dal. Ibrahima wax la Kumba Gawlo ki ko liggéey moom dafa ñàkk fayda. ah bàyyi ba Kumba Gawlo denc ay millions dimbali ndayam dimbali baayam nga ne da ngay da ngay ay baaxam. Sénégal lu nekk fi am. lu nekk fi am. Ah, ah, ah, waxuma loolu de damay laajte yaa ko wax damay laajte. mais Seydou ngi lay ñaanal maa lay wax si sa barke yaa ngi seetaan ñaanalal Kumba Gawlo mu wér ndax yow koo ñaanal mu wér Cheikh man Coumba Gawlo la moo tax may déglu musique surtout ak waayam boobu nag. waaw waaw ma Amadou. ndeysaan ni muy mel ko. waayam boobu ni may def ni may def ëpp na. yow ban waayu Coumba Gawlo la mën a. waayu Coumba Gawlo. waaw man yi ma yëngal bëri la. bul xalaat Balla si sax. oh ndeysaan moom la dafa bëri way yu ma daan. dinaa war a ñëw li ma neex waaye benn Amadou. Coumba Gawlo nag boo demee li nga xamul njëkk dong la feebar. mais ñoo ni si si way Coumba Gawlo la ñoo ni si way Coumba Gawlo la. <laughs> Ah, defoon na ko kuy fagg de. yegg si. boobu léegi na kenn daa foogul xam naa. <laughs> nan la ko nan la ko waxee nan la ko waxee. nu mu ko waxee teewul sax. kuy fagg. loolu doon kuy fagg. <laughs> yegg si man de maa ngi bëgg a tiit sax. kuy fëgg. dégg dégg naa kuy fëgg. bañ naa bañ naa. du ma faa ëpp ñaari loxo takk tuubay du ma takk seer. bañ naa bañ naa. du ma faa ëpp ñaari loxo takk tuubay du ma takk seer. walaay tiipa tiipa ta. loolu la ko la pàcc bi di pàcc ma ta. loolu la ko la pàcc bi di pàcc ma ta. man kaw la awoo. non man nag man nag ah doon naa nag ba may nekk xale bu ndaw nag. wax hmm. muy wax seytaane yow yaa ñu rakkal. Eh, eh. waaye bu neexee noonu. yoon naa waaw walaay seytaane. waaw wooy seytaane. seytaane. boobu la ak bu ngeen waay soo mbëggee waay waay bii waay. yoo yoo yoo xoom bi yoo yoo. baax na ma dara. baax na waaye xool. ñu ngi koy e yo. doo ko ñor di ndànk. Eh, man de bëgg naa laay. is si moo may mooy wàcc. bëgg naa ñu ànd. séeri bëgg naa la ñu ànd jëm kenn kay réer ji man de maa ngi bëgg a gaañu sax. suuf suuf mu ngi tooy de. mu ngi tooy mu ko moo war mu ne léegi nag Kumba Gawlo ma laay fental waay man maay waayal Kumba Gawlo. waay waay maa la Kumba Gawlo. waay la Kumba Gawlo léegi Cissé ñu ma xool man ak ñii ku ku dàq waay. dama waay. dama rek yow. su ma la nee bëgg naa la nga war maa gëm. kin kin. moom da koy woyal. da ngay woyal kan. yow nag moom moom xam nga moom si naqari si yow. yow nit ñi dañ naan góos yow nga ne duraat ak sa bët yi mel na. xam nga xam ni yéen waa ba dimbali. am na ah, si ku bëgg wala say. léeg-léeg léeg-léeg waaye nag sa bakkan bu màgg yële. man de dama dama fi dul nekk sax yu bëri wax am na koo xam ne war naa suukar rek lay niroon. ayca tey lu ñu may si temps tey lu ñu may si temps dafa bëri ndax sànq mosoo doonoo gën tey ñu may ñu temps. dama dama ñëw. waaw nu ma jee. jën jën. même waxi naa fi. kon kenn du ko jënd. aywa du eh. wax naa ne jaaxal na ma. waaw mbëggeel mooy dugg si. def loo ko lu mu tey ñëwul léeg-léeg nit bëgg la suma mi ngi mu naan ma kafee li ko waral mooy mbëggee la bari doole eh, eh. ay mbëggeel ci xol lay ne ak si nopp lu xol xam yëgal ko xel ak si bët yaa dugg sama xol bi xel mi du la bàkkee yow yow demal waaye. mbay jëla. yow waaye rek la waaye rek yow. wallaay way kii Kumba Gawlo Seck la wax lay waaye ba léegi man déggu ma sax mu tudd si baatu Kumba Gawlo Seck. moom xam na ko moom xam na. léegi jàngal ma jàng naa kaa waayal lii. Kumba Gawlo Seck yow laa yooy. ay Kumba Gawlo ay Kumba Gawlo ay Kumba Gawlo man de nee naa Kumba Gawlo Kumba Gawlo. ay di weeral ku jàpp sa baat daal war ka bàyyi ku ma gaw la yow lay wayal man de bëgg naa la ku ma bëgg naa la yow kumba jaaga may sa jooy kumba gawla ay kumba gawla or kumba gawla or kumba gawla daal ma boo ma dëggatee dina am xeex yow ku ñàkk jom nga moo tax ñëpp a ngi wayal yow li ma la tëggal yëpp nga waa dégg baal ma wayal ko kumba gawla rek keroog lu mu jooy ci plateau bi bàyyi ma wayal ko foofu yëpp a tànnal bay boobu laa koy wayal ñuy def rob ay américain lañ wala bu fi wax wax indo rek moom dama bëgg chaque moom dafa bëgg genre way yooyu ay rob yow loo fi andi baax na da dama rek waaw léegi man ni ma leen doon gungeewee nii yéen tam da ngeen ma gungee rob xam ngeen rob musique boobu noonu yow loo fi def mooy man kay mën naa la jàpp sari ñooñu rek xam ngeen ñooñu soos bi bëree fi loo fi indi ni boo fi indi ñaan tan ko bëri ni soos waaw loolu dëgg la waaw dégg garaaw hey Coumba Gawlo kumba gaulo manyo na burger. Kumba gaulo, I love you the ten. Ana guitar sekk. Oh, si jàmm yàgg nga bégal Sénégal bu góor ak bu jigéen Sénégal yëpp yàgg nga leen bégal. Kumba Gawlo. yow looy looy mel ni DJ yi. yow dafa bëgg rob loolu lu tàng kay. yow di nga ñàkk ngay mel ni bambara. di nga ñàkk kay. ah boo dee yuuxu eh, doole boo dee eh, yuuxu boo ba àndee yuuxu. yow xëytul na kii ba xam daa am lu muy ah, kii kay. xëytul ma ko. kii mu ngi naq saa. gis nga kii bu ma jege woon ba léegi jël na ko. garaaw da ngaa gaaw dóore da da ngaa gaaw dóor ni nga may dee nee na ma temps bi mot na. kii bu dóoree yow lay dóor de. waaw baax na ni nga ma waaw baax na bu dee bu doon nga ah, kanam bu dóor nga xam nga xam ni. Ah, <laughs> waaw ah, fi doo fi dóoree. waaw mi noonu seen émission Sans Ngoumba. moo ñëwaat sama ñaari ndaanaan yi xam ne sama artiste comédien yi leen muy Omar ak euh, Malick ñu ngi nii nga xam se ni artiste comédien euh, ay yu siiw lañ nga xam se ni ay ah, naa leen seen émission Sangomar nga xam se nii nee naa leen euh, ñun nii famille lañ famille ah, ah, waaw ñoo tàqale billaay wallaay moom nag xam naa ni nag da ngeen koy soog a gis seen émission Sangomar mais gan la fi waaw mm-hmm. Ibrahima léegi dama lay comme que dugg si ba présenté woo woon sa bopp mm-hmm. léegi dama lay bàyyi si si jeexantal bi nga présenté sa bopp wax askan bi yaay kan. ndeysaan yaa man kan présenté sa bopp comme maanaam comme lan noonu. waxal ak askan bi yow yaay kan. Hmm, mhm. askan bi waaw. Ah. man maa Ibrahima. waaw i kese. loolu doo xam sa bopp. comme. ah, ah waaw waaw waaw. waaw salaamaaleykum. Sénégal. Eh, waxal ndànk waa ca demal. seen émission tey. mënu ba. Eh. ñaa naa wax ndànk waxal boobu kii salaamaaleykum man la Ibrahima artiste comédien bu ñëw tey c'est la première fois may teew ci émission bii waaw te xam naa ne nag jeex naa ak dee naa yem chaque jour que Dieu fait di ngeen ma gis ci émission bii waaw ñii liñ doon bëggal Sénégal ñu ñëw yokk ko mu gën a neex ñun ñëpp ñu boole suñu doole di gën a liggéey doole émission bi di ngeen fi gis comédie soo façon bu ne na waaw c'est la première fois aujourd'hui mais incha allah di ngeen gis yeneen différence yi wuuteeg yi ñu def tey bu soobee yàlla ngeen ngeen bëgg rek. waaw merci beaucoup. Ibrahima moo nekk noonu ah, dimanche bee passé euh, amoon na bu ma defoon mais émission bi gars yi euh, image yi moo baaxul monsieur Soxna moo ko doon monté man ak sama jaaykatu daal bi xam naa dina ma dina ma mere mais dinaa la woowaat man ak yow ak gars yi sama équipe bi ñu tourné waat émission boobu ñu gën ko yaatal. ah comme nag Omar moom dafa ndawoon jamono yi yëpp ah, nijaayam moo ko yebaloon dëkk ba astafurlah yaayam moo ko yebaloon dëkk ba si doomu nijaay yooyu pour mu xool seen jëm see takk ah, kenn. mais nee am na ñaar ñu ko résulté mais après dañ la ma tenté waa chance Omar waxal ak Sénégal yi gars yi gën doon laa gis seen émission sanguma gars yi namoon nan la fan yëpp ñu ngi may laaj ana Omar ana Omar ma leen Omar dafa dugg si ruq rek mais dina ñëw incha allahu rabbi Omar waxal ak gars yi. jërëjëf ni nga waxee noonu la mu mel na day amati mbégte bu baax baax tey kontaan bu baax ci ñi nga xam ne ñooñu ñooñuy taamu mm. ndax nee naa la man ak yow kenn lañ. dëgg la wér. Ibrahima ñëw. doo bokkaat ci. Mm-hmm. ndax bi sa àdduna. ñi bokk teen ñooy laxasoo ay bopp. Mm-hmm. waaw noonu la ko olof waxee. ndax maanaam gis lii daal entre bi daal yàlla na yàgg man am naa ci mbégte kontaan naa bu baax a baax danga bàyyi di tooñ nag man xam nga ne man moo su may takk soxna yow di ko yëg xëy na damaa demoon mbokk yi ndax ak bëgg ñebe jamono <laughs> bëgg ñebe kii waaw loolu moom dëgg la <laughs> xam nga jamono day baax boo nekkee ci àll bi yàgg nga dem xooli say mbokk dem xool ba xam ci luy nekk loolu dafa am solo damaa xooli woon mbokk yi waaye nag fa ma demoon waa Kër Ndiaye ak ñëw mën gan ndax ku ci mel na Thierno Diouf ak ak Modou Diouf. waaw ma ngay wàcc. ndàngal boo wàccee ndàngal ma nga dugg ci biir léegi am na kalandoo yi taxaw foofu noonu kalandoo yi fee la ñuy dem Lambaye dëkk bu ñuy wax Lambaye kalandoo yi foofu la ñuy. Eh, dem sa tur dëkk yooyu noonu ñaan la dara mën. waaw demuñu fa waaye maa ngi sant Baye Zale ak ñoom Modou Gueye ak ñoom Modou Diouf Fallou ñoom ñëpp ak ñoom mën kat. ndeysaan wax dëgg yàlla ñoom yàlla na seen jàmm yàgg. amiin ok. ah mu ngi noonu seen émission Sangomba ah, fi mu nekk nii eh, eh, doon naan eh, jamono ji nga xam si ni dafa tëradi. Coumba mm-hmm. Gawlo Seck ñu ngi lay ñaanal wér. yàlla nga wéraat ba ñëwaat ci kaw seen bi. Mhm. yow Kumba Gawlo soxla nan la fi ba si kanam a kanam ndaxte yow ndaanaan nga da ngay bëggal askan bi. Mhm. Euh, soxla nan la fi yow yàlla na ah, ñi nga xam si ne dama nan Tuubaa nag ko defatee de dinañ ko rëccuwaat bu baax a baax a baax. waaw dinañ ñaanalaat ñëpp jàmm di nee naa leen émission bi émission jàmm la. Mhm. rawatina muy site internet bi nga xam si ni tuddee nañ ko Salam Vision. nga xam si ni kër gi euh, kër Baye Fall la. Euh, borom kër gi nga xam ne seen Cheikh Oumy mooy wasilaam tay ëllëg seen Cheikh Oumy ah, daal koy def jëwriñ muy tondoo Sam ah, yal na yen bi oyof lool si sa kaw andi feek ñoom Sam mi nga ci nga xam si ni dama koy tooñ chaque jour sànq rek bi ñuy tëgg maa naan mi ngi fecc ak Samba ak waa kër gi ñoom Ndaayaan ak ah, Ndoof ñi nga xam si ni ñoo fi dëkk waaw mm-hmm. di leen ñaanal jàmm àdduna ak jàmm àlaxira ñu waajal ñu waaw di leen ñaanal jàmm àdduna ak jàmm àllaaxira di leen wax nag yéen loo leen dund doyul loo leen doyul say maam maa lay ñaanal jàmm àdduna ak jàmm àllaaxira man nag sama téléphone dafa yàqu ñu ngi may woo ku may sarax téléphone rek maa ngi nii waaw démb daal sama téléphone yàqu sama ah sama téléphone am na amul fu ma woo cee kenn kenn kenn di leen jox nag rendez-vous Salam Vision. Mm-hmm. mi ngi waajal lu rëy si koor gi ci koor gi. Mm-hmm. ànd seeg sama gaay yi. Mm-hmm. man nag foofu leen rek laa leen di ñaan. Mm-hmm. koor gi liñ ciy waaj yëpp. lekk yi bàyyi leen ma koy lekk. waaw ah, baax na yow moom lekkal la ko. waaw loolu mën naa lekk. <laughs> lekkal lekk moom lekkal la ko. kon waaye tamit waa Fane Penda de waa Fane fàttewuma leen. maa ngi leen di sant bu baax a baax. waaw day am mbégte di kontaan ci ñoom bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci yéen yéen yal na seen jàmm yàgg ci ñun. mi ngi noonu seen émission sàmm Mbadoo maa ngi ñaanal nag sama yaay gudd fan ak wér di ko ñaanal sama papa. di ko ñaanal euh, sama tànn yi ñi nga xam sama soxna papa. ku si mel ni Fajjeri ku si mel ni Kumba eh, eh, Kumba Kumba Timbañ ku si mel ni Mbayang Loobe eh, di maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak weer di leen ñaanal jàmm àdduna ak jàmm àlaxira di ñaanal ki nga xam te ni moo nekkoon sama aw papa te xam si ni dafa génn àdduna muy Penda yal yàlla xare àjjana ndaxte yow yàqoo kër gi wax dëgg yàlla Penda yow yàqoo kër gi yow da nga kër gi mais ah, yàlla na ko suñu borom fay yàlla na ko yàlla nga bokk ak ñoom Seydina Mouhamed àjjana nekk sa àjjanay firdawsi waaw di ñaanal ñëpp nag di ñaanal euh, kër gi yëpp nag di ñaanal waa Sénégal yàlla na fi yàlla na fi jàmm di ñaanal Adji Sarr Adji Sarr yàlla xal euh, comme que yaa wax suma euh, kee viol retiré plainte bi ñu nekkaat si jàmm ndaxte émission bi ni ñëw nag bëgg naa ñu dalal Iran Ndao mhm. tey soose mhm. Ahmed Khalifa Niass de de de ah ñuy wax ñu si mbirum. Ah, Adji Sarr ak kenn. boo leen boolee si plateau. def par kenn kenn. donc plateau xumbu ta tàng. waaw di faut que mu boole. am boole si plateau. Ah. prochaine euh, xam par kenn. yaa ngi léegi nag euh, dina leen joxaat dig daje ba beneen numéro. incha allah si émission Sam Ngoor. foo may tàggatoo ak yéen. فليداك العيب الميدون لو أطلع غير غنيان